jamiici xulafaa'ihi wa ahli tariqati mbokki jullit yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa juli ci ay ñooñam ak i saxaabaam dellu si nen fas yéene waxtaan ci yonent yàlla Muusa comme ni ñu ko daan defe mu mel ni ci ajuma ji weesu gis nañ ne yonent yàlla Muusa alayhi salaam e yàlla digaloon na ko pour mu dugg ardal muqaddasa ndax suuf la soo xamante ni moo leen ko tànnal pour ñu dëkk fa waaye ñoom charte bi yàlla tëral te moo di ñu dugg fa xeex ak saay-saay sa fa nekk génne leen mu tànn ci banu Israël famille bu nekk comme fukki famille lanu ak ñaar mu tolloog doomu bàyyi yusufa ya di doomu yaquba ya mu tànn ca ñooñu lañ doon tuddee an nuqaba ñooñu ba ñu demee ba gis dañu gis ñaar ñoo ca e, juyewul ak Muusa lu dul dañu topp ndigalam te moo di Yusha ak e, Kalib mais ña ca des ñépp bi ñu ñëwee dañu informé seeni famille wax leen ne leen daal dëkk bi su ngeen demee xeex yi danañ leen rey e, kon da ngeen di toog bàyyi Muusa mu dem moom ànd ak boromam bi xeex su gañee baax na su gañewul ñun ñu wàññeeku ñibbi loolu taxoon yàlla def ci ñoom ngëlamte ngëlamte loolu nag eh, ànd na ak ñoom diir bu yàgg xamuñu fu ñu jëm mënuñu itam dellu fa ñu jóge woon wante itam gis ngeen ni yonent yàlla Muusa jàmmaarloo woon na ak boroom xam-xam bu rëy ñu ko doon wax balaam mu nekkoon nitu yàlla yàlla def ci moom xam-xamu xikma mu demoon ba am ismullahil aadam dem ba bu toogee ci suuf bu xoolee ci kaw asamaan di jàkkaarloo ko arash waaye aw nitam jay nan ko di ko mën-mën loo ba mu dugg ci noonoog koo xamante ni yàlla ko yónni mu nekk ci service yàlla loolu taxoon na yàlla alak balaam moomu te moo di dafa xëcc ci làmmiñam ba làmmiñ wa àgg ca dënn ba ba boo ko gisee muy niroog xaj loolu nekk kemtaan bu rëy ci nit koo xamante ni nitu yàlla la yàqule yàqule bu tol noonu kon nga xam ne nit ki toujours dafa war a nekk jaamu jaamu yàlla maanaam jullit toujours dafa war a nekk ci baynal xawf wa raja eh, ragal fa bu ko defee toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakaar itam yërmande yàlla foo toll baynal xawf wa raja mu mel ni kon eh, balaam moomu yàlla alak na ko wante yonent yàlla Muusa gis ngeen ci waxtaan wi weesu ne itam aw nitam sonaloon nanu ko ndax demoon nen ba tuumaal ko waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéreem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Muusaa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg E, xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Muusa ya maree naan nga xam ne soxla nañu ndox pour sangu soxla nañu ndox itam pour naan soxla nañu ndox itam pour seen jaamu yàlla bu ñu bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Muusa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëti robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëti robinet booy eh, roote te kenn du xatal sa moroom moom la alquran wax ni wa is istasqaa wa is istasqaa muusa li qawmihi fa qul nadrib bi asaaka alxajar fanfajarat minhu اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم kulu washrabu min rizqi llahi wala taathaw fi l ardi mufsidin mu mel ni nag yent yàlla Muusa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu ammin miskiin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه xayaatuhu qatalahu li yarisahu ñu ne amoon na benn waay ci bënu Israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Muusa amoon na ca benn waay bu bari alal ñu koy wax aamil mu bari woon alal lool mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donn aamil moomu ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a ku dul mm, doomu baayam boobu nga xamante ni faqiir la miskin la yorul dërëm waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bi nga xamante ni moo di doomu baayam moom bis bu nekk mu ngi xaar rekk aamil gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu e, kii gudd fan lool te moo di aamil loolu nag taxoon doomu baayam bi amul sago mu daldi fexe rekk tëral ay pexe ba rey aamil male ba mu ko reyee nag mu daldi koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu defu ko lu dul rek pour eh, tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu Israil ndax waa ji def di boroom alal di boroom daraja di boroom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii euh, ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu il gépp daldi babbi nag wuuti yonent yàlla Muusa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mi nga xamante ni boroom alal la di boroom barke waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu baayam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu baay la ci moom E rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu Israël amul kenn koo xamante ni rekk yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ne li xew léegi xew na te moo di tànn miis ñu ne kooku mooy nekk miisu banu Israël waaye doomu bàyyam boobu itam gis ne soxnaam si rafet na te bu gaañoo bu amil gaañoo mën na ko donn ci moom loolu taxoon na itam mu rey ko kon ñaari riwaaye am na ci waaye daal bi ñu ko reyee moom waa doom baayam bi bi mu ko reyee toxal na ko jële ko ci dëkk yóbbu ko ci dëkk ba mu demee itam sànni na ko ci dëkk boobu ba tuuma topp na waa dëkk boobu loolu nag taxoon waa banu Israël ñëw ci yonent yàlla Muusa di ko laaj ne ko daal dañu bëgg nga négocier ak sa boroom pour sa boroom orienté ñu won ñu kan moo rey aamil mi boo demee ci suuratul baqara la tax ñu tuddee ko saar bi moo di ne xew-xew bi moom moo tax li tax ñu tuddee ko la vache mu di al baqara bi ñu ñëwee ci yonent yàlla Muusa yonent yàlla Muusa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nag ngeen rendi ko wuti leen nag ngeen rendi ko e ñu ni ko ah yow Muusa xanaa da ñuy yëj yow ñu ngi lay laaj mbiru suñu mbokk mi génn àdduna nga ñuy wax dem leen ngeen indi nag rendi ko loolu la alquraan wax ne wa iz qaala muusa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tasbaxu baqara qaalu attattaxizuna huduwa ñu ni ko yow Muusa xanaa dañu bëgg a yëj di ñu foye Muusa ne leen auzu billahi an akuna min aljahilin maa ngi muslu ci yàlla ci may nekk koo xamante ni day yëj ay jullit Muusa ne leen jullit kenn du ko yëj man duma ñaawal jullit duma ko sabote li ma leen wax yàlla ma ko sant moo di ne ngeen dem wuti nag rey ko loolu de la ma sant dem leen ngeen defi ko waaye nag bi nga xamante ni banu Israil xam ne ne rendi gi jógewul ci yonent yàlla Muusa waaye yàlla ci boppam moo ko digal ci leen ko laaj nag ne ko wax ñu nag wi ñu war a rendi naka lay mel qaalu ducu yu rabbaka yen lana maa hiya ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa boroom mu leeralal ñu nag woowu nu muy mel qaala innahu yaquulu innaha baqaratun la faaridun wala bikrun cawaanun bayna dalik fafcalu ma tu'maruun mu ne leen e borom bi nee na nag wi nag la woo xamante ni du mage te itam du ndawe du nekk e, nag wu màggat du nekk itam nag wu ndaw bu mu ëpp mu ne daal day nekk ci diggante bi rek day diggu doomu mu ne nag kon def leen li nga xamante ni moom laa leen sant te bu leen baril ay laaj ci man dima laaj ndax yéen banu Israël giir gu mën a laaj ngeen giir gu mën a sonal nit ngeen waaye ñoom dañu ñu rekk di laaj yonent yàlla Muusa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fa dabaxuha la ajzaat anhum ñu ne bu fekkonte ne ñoom ba leen yonent yàlla Muusa waxee ne leen dem leen ngeen wuti nag rey ko dem leen rek daldi jënd benn nag rey ko mu nekkoon loolu dana leen doy waaye nag laaj gu bari gi moo tax yàlla wax leen nag woo xamante ni lu njëkk ñuy am nag wa sonn nanu lool ndax nag wu jafe am la leen yàlla wax pour ñu wut ko a ah, ñu continuer di laaj yonent yàlla Muusa ne ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها e waxal sa boroom wax ko ne ko mu wax ñu mu leeralal ñu nag wi ban couleur lay yor xanaa demal dem leen rey nag mënoon nañu dem rey waaye ñu ne ko nag wi lu muy doon mu ne leen nag wi du nekk nag wu màggat du nekk itam nag wu tuuti ba mu ëpp kon ci diggante bi lay yem mu ne leen itam ñu ne ko euh, couleur ba nu muy mel muusa ne leen qaala innahu yaqulu innaha baqaratun safraau faaqiun lawnuha tasurru nnaadirin mu ne leen yàlla nee na nag wi nag wu jaune lay nekk te itam jaune bu rafet bu clair jaune boo xamante ni bët bu ko xool bët bu ko gis nee na sa xol ndax rafetaay bu ëpp ndax dañu wax ne al aynu tasurru wa tuuliu nadar ila shey il xasan ñu ne bët dana di bég te itam dana di xiirtal nee na xool lu rafet maanaam toujours bët day bëgg di gis lu rafet yàlla ne leen kon nag wi bu mu nekk nag wu ñaaw na nekk nag wu jaune te jaune ba nekk nekk jaune bu rafet Euh, moo tax ali ibnu abi taalib moom wax na ne man labisa naclan safraa qalla hammuhu li anna allaha taala yaquulu faaqicun lawnuha tasurru nnaadirin ali ibnu abi taalib karama allahu wajahahu dafa wax ne eh, couleur bi nga xamante ni moom la yàlla choisir ci nag wi nee na ba wax ne couleur la boo xamante ni dafay bégal way xool ñi mu ne looloo tax moom choisir na moom aliyoon ne nit ñi daal bu ñuy solu nanu sol dàll yu jaune nee na ndax képp koo xamante ni nee na saxoo nga sol dàll yu jaune nee na say problème dafay wàññeeku waaw ndax toujours sa xol day nekk ci mbégte ngir ne yàlla ba muy tànn couleuru nag nee na der bu jaune la tànn mu ne kon nag nga sol dàll bu jaune nee na loolu day wàññi eh, njaqare day wàññi itam ay problème waaye taxul banu israil gàttañ lu ci seen laaj ba léegi ñu ngi continuer di laaj yonent yàlla muusa ñu ne ko qaala ducu lana rabbak yubayin lana maa hiya inna albaqarata tashaabaha calayna wa inna inshaa allahu la muhtaduun ñu ne ko waxal sa boroom bi mu wax ñu nag wi naka lay mel ñun de nag wi lënt na ci ñun xaw na compliqué ci ñun waaw wax ko daal mu gën ko leeral te incha allahu e su ko leeralee e danañu gindeeku te danañu xam itam bu ñu demee ban nag la ñuy jënd qaala innahu yaqul innaha baqaratun la dalulun tuthiru al ard wala tasqi al xarth musallamatun laa chiyata fiha yonent yàlla Muusaa ne leen borom bi nee na nag la woo xamante ni du nekk nag wu ñu sonnal ci liggéey nag woo xamante ni day jëqi suuf si wala muy root comme ni ko boo demee ci kaw gi da gis ay nag yoo xamante ni dañuy bay waaw gis itam ay nag yoo xamante ni ñu ngi ci teen yi di root mu ne nag wi nag bu mu bay bu mu root mu ne itam musallamatun nag la woo xamante ni bari atun min al uyub du am ay ayib waaw du nekk nag wu làggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw déedéet la chiyata fiha waaw boo demee ci eh, ata moom dafa wax ne la chiyata fiha mu ne laa ayiba fiha maanaam nag la woo xamante ni du am benn ayib waaw nag wu mucc ayib lay nekk xam ne cër yépp ay wér ah bi mu leen waxee lii nag qaalu al aana jita bilxaq ñu ne ko nag léegi nag wax nga dëgg ki léegi nag xam na nu ban nag nga ñu wax waaw e léegi nag ci la nu dem nag pour wuti nag woowu waaye ñu ne li tax yàlla dëgëral ci ñoom e ñoom ñoo dëgëral ndax su fekkoonte ne ba leen yàlla waxee dañu jóg rekk daldi dem defi kon coow du ci bari waaye itam ñu ne dëgëral gi nga xamante ni yàlla dëgëral na ko ci compliquer mbir mi nee na am na beneen xikma beneen philosophie bu lalu ci biir nee na nag ndax cause bi tax yàlla wax leen pour ñu dem wuti nag wu mel noonu e jële neen ci Abdullah ibnu Abbas mu wax ne dafa amoon benn góor gu baax goo xamante ni ci banu Israil la bokk am itam doom doom ja baax lool maanaam góor gi baax na waaye itam doom ja baax na e góor gi itam daldi am benn nag yéene ko doomam ji ndax baax bu mu baax ci ñaari waajuram góor gi daldi dem nag jël nag wi yóbbu ko ci benn foore benn e, xaaba daldi ko fay e, dénk yàlla ne ko yàlla dénk naa la nag wi sama doom ji bu màggee na ko jël mu nekk sama ndono ndax sama xol sedd na ci moom doom la joo xamante ni daal gërëm naa ko e ñu ne nag xale bi kaana baaran bi waalidatihi ku baaxoon la ci waajuram wu jigéen itam ndax bi waajuram wu góor gaañoo itam mu dese waajuram wu jigéen e taxaw na ci wetam taxawaay bu rafet wax nañ ne daan na guddi gi ñetti cër benn cër bi daf koy julli ba mu jeex beneen cër bi daf koy nelaw beneen cër bi dafay toog ci wetu yaayam buy nelaw waaw mu toog rekk ci wetam nga xam ne bu yaay ji nelawee mu nekk ci service yaay ji di ko jàppale waaw lu yaay ji bëgg rekk mu daw waaw fexe ba yaayam bañ a am benn problème bu suba jotee nee na day dem ca àll ba taxani matt yenu ko ci digg gannaawam dem ca marché ba jaay ko su jaayee matt ma dana jël alal ja séddale ko la mu am dana ko séddale ñetti cër benn cër bi moom lay lekk beneen cër bi e mu jox ko wuy juram bi ci des mu saraxe ko nga xam ne kon e teral say woy jur ci sa ñaq ak di ci saraxe loolu dara gënu ko mu mel ni kon xale bi joxe na foofu e, ñaari jikko yu am solo te moo di nit ki la muy liggéey la ci ëpp doole mooy la nga saraxe e, ci yoonu yàlla ak itam la nga tërale sa ñaari waajur waaye yaay ji wax na ak moom benn bis ne ko yaa bunay inna abaaka warrathaka ajalatan وذهب وجل ورثك عجلة وذهب بها إلى الغابة واستودعها الله تعالى وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها فأتى الغابة فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها إلى فجاء بها الفتى إلى أمه ñu ne bis yaay ji nee na ko yow sama doom sa baay de e, bàyyi woon na fi ndono loo xamante ni yaa ko moom benn yëkk la nag benn ijla la moo ca gott ba e, yàlla nag la ko dénkoon li la ko li lay wan nag màndarga bi ni nga koy xàmmee mooy boo ko gisee nee na e, melokaanu deram dafa xaw a niroog ceeñeeru jant ndax leeraay gu ëpp nag wu rafet la nee na nag la woo xamante ni dafa sell boo ko xoolee rek xam ne nag wii am na lu yàlla def ci moom jaune bi nekk ci moom itam jaune bu sell la te rafet nee na xale bi bi mu ñëwee ba ci foore bi nee na ci la gis nag nag wi nee na mu ngi for xale bi daal di yuuxu nag wi ne ko yow nag wi maa ngi dogu di e, di tawas di def tawassul ci sama maam Ibrahim ak Isxaaqa ak Yaaqub maa ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wet xam ne man maa la moom ndax maa la donn ci sama waajur bi mu waxee wax bi la nag wi daldi waaxu ñëw ba ci kanamu xale bi daldi taxaw xale bi daldi jàpp ci baatu nag bi daldi koy wommat yóbbu ko ba ca waajur wa ba mu ñëwee ne ko yaay nag wi de mu ngi nii ci la ko yaay ji wax nag ne ko gis naa ne daal yow ku ñàkk nga amuloo dara te itam taxan bii ngay def liggéey bu metti la ndax mënuloo di taxan ci bëccëg gi guddi gi itam nga fanaane ko jaamu yàlla kon nag demal ca marché ba nga jaay ko su ko defee nga jël njëg gi waaw ba muy dem nag diisoo na ak yaay ji ndax xale bu baaxee du réeroo ak i waajuram fu mu tollu rekk ak lu mu mënti dugg lu loola suufe suufe lu mu ñàkk ñàkk fayda dana fexe ba diisoo diisoo caag ay waajuram e xale bi daal di woy waajuram ne ko yow sama yaay bi kam abiuha ci ñaata laa koy jaayee yaay ji ne ko bi thalathati dinar mu ne ko mën nga ko jaaye ñetti dinar mu ne ko nag bu ko jaayee bu ko jaay ci njëg gu ma nanguwul waaw boo demee itam ñu proposé la beneen njëg dellu sil fii ci man nga diisoog man ñu nete booba itam nag wax dëgg yàlla mu ngi daan jar ñetti dinaar kon njëg gi ko way juróom wu jigéen wax moo doon njëg gi nga xamante ni moom la ñu war a jënde nag xale bi daal di dem ca marché ba ah pour jaay nag wi ndeke yàlla itam yebal na benn malaaka pour seetlu xale bi ndax topp bi mu topp way juróom dëggu na ci walla dëgguwu ci ndax am na eh, ñoo xamante ni danañu topp seen wayjur waaye bu ñu gisee seen bu ñu gisee intérêt fàtte seen wayjur waaye xale bi moom intérêt taxul mu fàtte wayjuram ndax ba mu demee ca marché ba yàlla yebal na benn malaaka malaaka mi yor jëmmi nit daldi ñëw fekk xale bi yor nag wi di ko jaay mu ne ko looy jaayee nag wi xale bi ne ko maa ngi koy jaayee ñetti dinaar mu ne ko waaye nag prix la boo xamante ni sama yaay moom mu ko digal ne moom laa ko war a jaaye malaaka mi ne ko ana utika sittata dananir mu ne ko man mën naa la jox juróom benn dinaar tegal naa la ci ñetti dinaar mu nekk juróom benn xale bi ne ko bàyyi ma kon ma dem laaji sama yaay su fekkee d'accord na ci njëg gi ah, ma dellu si jaay la ko mu ne ko ah kon nag su fekkee da ngay dem pour diisoo jeg sa yaay kon duma la ci tegal euh, ñetti dinaar yi mu ne ko ah kon baax na waaye daal balaa ma jaay nag wi doonte tegal nga ma ci te sama yaay ñetti dinaar la ma waxoon fokk ma delluwaat ci moom xale bi daldi ñëw daldi ñëw ci yaay ji ne ko man de gis naa fa benn waay waaye fay na ma daal e, juróom benn dinaar ah yaay ji ne ko waa demal soo demee nga jaay ko juróom benn dinaar xale bi daldi ñëw fekkaat malaaka mi taxaw mu ne ko sama yaay d'accord na ci juróom benn dinaar yi malaaka mi ne ko waaw d'accord na ci juróom benn dinaar yi waaye man sax léegi def naa ko fukki dinaar ak ñaar soo bëggee mën naa ko jënde fukki dinaar ak ñaar waaye nag bëgguma ngay delluwaat ci sa waajur di ko wax naan ko fukki dinaar ak ñaar e, lan ma fay bàyyi rekk ma fay la nga dellu xale bi ne ko déedéet man daal ñemewuma mukk def loo xamante ni sama wéyjur d'accordu ci te itam maa ngi lay yëgal ni e law actaytani waznaha dahaban lam axuzhu illa bi ridaha soo ma joxoon lu tolloog poids nag wi ci or du tax mukk ma jël ko lu dul ne sama yaay moo ma sant pour ma jël ko a ah, malaaka mi daal di koy bàyyi e mu delluwaat ci yaay ja ne ko yaay ba ma demee itam eh, fay na ma lu ëpp loolu ndax wax na ne daal léegi fukki dinaar ak ñaar la koy jënde te ñun ñetti dinaar rek leen doon jaaye ah yaay ji nag ci xam-xam bu ko yàlla xamal am na lu mu wax doom ji